seede na yonent yàlla muhammad jaamam la woon bu mu yónni ci ñun yàlla du nangul kenn ak jaamu yàlla lu dul la nga roye ci moom gannaaw loolu mbokk jullit ñu ngi dund benn jamono ci jamono yu jafe yu yàlla di nattoo ay jaamam muy jamono bi nga xam ne yàlla wàcce na ci ñun lii nga xam ne dañ ko tuddee corona muy natt boo xam ni yemul ci ña feebar kese bal ëmb na képp koo xamee ne nii tey yaa ngi ci kaw suuf ñàkkul benn effet bu mu def ci yow waaye bokk na lu ci gën a feeñ mooy jeexital bi mu am ci am amu doomu aadama yi aka bari ci nit ñi ñoo xam ne corona bi wàññi na lool seen am-am aka bari ci ñoom ñoo xam ni corona ba sax yàq na complètement fañ doon ami dagg na complètement loolee mbokk nag nattu la ba bawoo ci yàlla bu suñu yàlla suñu borom yàlla def ba pare nag gannaaw ba nag mu sas ñu ay sas sas yooyu mooy lan mbokk suñu boroom ci mbaaxam du dajale àdduna yépp ci ak lot fokk lot googee day am ñu mu ko nattoo waaye am na ñeneen ñoo xam ne ba tey yor nañu lu ñu teddee ba yor lu ñu denc suñu boroom yàlla nag di wax ak ñooñu te mooy ngalawaay yéen ñi nga xam ne tedd ngeen bay denc seen mbokk yi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe na ngeen leen jàppale loolu mbokk doonte ne ni moom mooy la nga xamee ni nii mooy li feeñ tey waaye nañu xam ne suñu diine ji naka jëkk moo nekkoon diine jàppalente suñu borom yàlla dafa am aaya bu mu wax ak ñun ca mujj mu sant ñu ci ay ndigal waaye ba mu koy ubbee ma ngi ko ubbee yaa ayuha allazina amanu awfu bil uqud ey yéen ñi gëm matal leen kóllëre yi ba ca but gën nag mu sant ñu lay jubluwaayu suñu xutba tey mooy wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwan dee leen dimbilinte ci lépp loo xam ne bir la la lan mooy bir mbokk bir mooy njëkk njëkk mooy lan mooy lépp loo xam ne dina jegeel doomu aadama bi boroomam bépp yoon boo xam ne yoonu aljanna la loolu mooy biir suñu borom mu ne nañ ciy jàppalente looloo tax ba li gën a am njëriñ ci doomu aadama bi li muy dimbilee mbokk doomu aadamaam mooy mu digal ko lu baax tere ko lu bon ndax taqwa boobee mooy lan mooy lépp loo xam ne nii yàlla gërëmu ko nañ def suñu digganteeg moom kii raay loolu mooy taqwa taawunu bil bir dimbi leen te leen ci ñekk wa taqwa dimbalante ci bàyyi lépp lu yàlla xaraamal loole la suñu borom yàlla santaani mu ne nañu moytu di dimbalante lépp loo xam ne day jur bakkaar ak lépp loo xam ne day jur ak noonoo diggante jaami yàlla yi ci xam leen ne yàlla ku tar mbugal la ay kon ñàkk a taxewa loolu day tax ñu dajeek mbugalum borom bi jalla wa loolu kon ñu bàyyi xel mbokku julit yow jullit heure booy dox ci kaw suuf jàppal ne sama rôle mooy dama war a doon kuy jiriñ doomu aadama yi yonent bi alayhi salaam nee na kii gën ci nit ñi mooy ki ëpp njëriñ ci nit ñi ku nekk ci ñun di xool ana man fan laa mën a jëriñe société bi société boobu nga xam ne yàlla ko séddale boroom xam-xam yaa ngi ne di jàngale imaam yaa nga ne di xutba wootekatu diine yaa ngiy woote jëme ci loo xam ne nii dana defar pas-pas yi dana defar jukko yi dana leeral atte yàlla yi médecin yaa ngi ne ak infirmier ak sage-femme ya sol seeni blouse ñoom tamit ci taxaw loo xam ne dana yéwénal ñi doomu aadama yi heure bu nit ñi jàqee jëm ci ñoom ñu ngi ci profité di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci corps de santé ci Sénégal ak feneen di teeru jullit ñi ci jaaxle gu feebar bi yal na yàlla taxawu leen yal yàlla aar leen yal na yàlla nangul leen sacrifice boobu nga xam ne tey bu nit ki feebaree xattaa soxnaam xattaa ay mbokkam yépp sori ko ñoom ñoo jël risque nekk di fanaan ak moom di yendoo ak ñoom ba lu bari ci ñoom ci xattaa dëkki yi ay professeurs yu mag tey nañ ci feebar bi ngiree loolu loolee mbokk taxawaay bu rëy la yal yàlla nangul leen ko waaye itamit ngal la demal ba yow foo mën a féete informaticien nga électricien nga yaa ngi ca menuiserie ba yaa ngi ca maçonnerie ba xamal ne benn pilier nga boo xam ne nit ci société bi nga da war a taxaw ci góorgóorlu jàpp ne gis bu ma xëyee lan mooy war a nekk sama jubluwaay lan laa mën a taxawee ba doomu aadama yi jëriñu ci ndax yàlla nu ko digal taawanu dimbi leente leen alal birri wa taqwa loolee li may xëyee di julli di xëye di zikr laa war a xoolit ana ban njëriñ la doomu aadama yi mën a jële ci man bañ a nekk ci ñi nga xam ne bu ñu xëyee seen jubluwaay mooy nu ñuy def ba jëriñoo doomu aadama yi mbokk julit su ko defee ñu bàyyi xel ci loolu bu baax mbokk julit suñu diine ji gis nañu ne mooy diine def lu baax ak digle def lu baax suñu borom mu ne maa ngi giñ ci jamono yéen ñëpp da ngeen ne perte doomu aadama yëpp perte nañu lu dul ñuy gëm tey def lu baax di diglente lu baax di terente lu ban te mooy saar boobu nga xam ne yéen ñëpp incha allah mokkal nañ ko wal asri inna al insana la fi xusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kon doomu aadama xamal ne yaa ngi ci perta nga tant que bokkoo ci jaam yi nga xam ne gëm nañu di def lu baax waaye di jàpp leen teg seen mbokk julit ci lépp loo xam ne xaq la mooy diine ju wér ko ju baax lépp lu baax waaye lépp loo xam ne lu bon la nga taxaw di ci terente ak ñoom imma nga man ko wala nga tegtal ko ku ko man yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam benn waaye ñëw na ci moom ni ko yum yàlla nii man de bëggoon naa dem ci xare ba waaye oomu lu ma war ndax doomu wutal lu ma war yonent bi ah dëgg-dëgg oomu lenn loo xam ne nii mën naa la ko jox nga war ko benn saxaaba na ah yi mu yàlla yónni te ma ko boole koo xam ne moom mën na ko jox lu mu war ci bi na ko ahaka yi addaalu ala xayri kafailihi xamal na nag ki tegtal nit ku lu baax moo ko jëf lu baax ñoo yem te mooy waa ji bu demee ca kee kay jox ko gileem tuyaaba jëm am ca gileem googu mu ko jox waa ji ko tegtal ba mu dem ci moom tuyaaba ju toll noonu lay am loolu kon mbokk muy diini lislaam foo toll del def lu baax di teru lu bon wala nga xool ku mën a def lu baax nga digal ku lu baax wala xool ku mën a teru lu bon nga tere ko la nga xam ne nii mooy lu bon mbokk li mooy la nga xam ne nii ca lañu lislaam di woo jëmi islaam boobu mbokk julit dafa bëgg jullit ñi yëg ne ay doomi lay lañu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne jullit ñi day ni ñuy bëggante ak ni ñuy jàppante ak ni ñuy yërëmante dañoo mel ne benn jëmm jëmm ji bu ci lenn méttee lépp yëg ko ca mooy bopp bi buy metti yaram bi dootu nelaw tànk naka noonu lépp naka noonu waaye kon muy wane yit ne noonu mu nekk jëmm mbokk doomu aadama ay pièces yu dul jeex yu dajaloo la bët am na rôlam nopp rôlam làmmiñ rôlam biir bi rôlam ila ila axiri kon ku nekk fa nga taxaw doonte ne safaanoo na ak fa sa morom taxaw teewul it jàppal ne man sama warugar rek mooy naa seet lay sama warugar ma def ko yeneen yonent bi joxoo ci beneen misaal mu ne nit ñi dañoo mel ne benn miir jullit ñi comme benn miir lañu brique bu nekk day dimbali moroomam su ko defee birig yee féete kaw lan moo leen fa bàyyi mooy birig yi féete suuf birig yi féete suuf buñ jàpp ci kaw ñoo leen gën déedéet ku nekk dafa war a am rek rôle boo xam ne boo ko joué yow da ngay gis na mën ngaa jur ñeneen wax naa la ko sama jël benn xutba ki gën ci nit ñi mooy képp njëriñ ci ni ñi looloo tax ba mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñi jox misaal ci ñuy dëkk jëkk a tabbi sawara waliyasu billah bokk na ca boroom xam-xam boo xam ni dafa jàngal àdduna yépp wala ko ku jël alalam sarxe fu nekk ak jihaad ba ci yoonu yàlla waaye ñooñu ba ñuy def loolu ñuy def ñan ci jiblu woon nit ñi tagg leen gërëm leen jiblu wuñ ci woon yàlla yàlla dugal leen sawar ngir loolu yonent bi alei salaam wax ñu koo xam ne da doon dem ci yoon romb benn caru garab bu am ay dég mu ne lii day su fi ñi jullit ñi jaaree mën na leen a lor mu dagg car bi dox lu yàggul daal di dee car boobu mu dagg ca la ko yàlla tàbbale aljanna loolee ma ko kon ñu xam doomu aadama bi fan la ko yàlla di gërëmee nga la way xamuloo ko sellalal sa yéene lépp looy def nga jublu ci ne lii yaa ngi koy def ngir jullit ñi man cee doon ñoo xam ne nii dañ ciy jëriñu mbokkul islaam boo ko xoolee bokk ni ci ay piliers yu mu saxal mooy la nga xam ne mooy génn zakat zakat bokkul ak sarax loolu pilier la dafa war ni julli ware année bu nekk nga war koo génne jox ko fuqaraaw yi pour lan ngir yee jàppalante am diggante ñi am ak ñu amul mbëggeel am seen diggante ñaanalante am seen diggante noonu nit gannaaw zakat la lislaam ñaaxaate ci sarax ñaaxaate ci dimbilante bu mu mën a doon da doon loolu ay kër yu ñu tabax la tudd ko waqf wala lu mu mën a doon noonu la lislaam santaanee ñu def njëkk ca la nga xam ne nii mooy dëkkandoo yi yonent bi aleyhi salaam ne bépp quartier boo xam ne xam nañ ne am na ko fa fande amul lu mu lekk ñépp seetaan ko ñooñu day kullal ak yàlla jeex na ci ñoom yonent bi aleyhi salaam ne wallahi du gëm koo xam ne nii dafay reer ba dégg ca xam ne dëkkandoom dafa xiif yii yépp mbokk da ngay gis kon moom ne lislaam woote jëme muy diina joo xam ne nii dafay den diina joo xam ne ju matala la islaam mbokk dafa bëgg nit ñi respectante ñuy dund société boo xam ne ñi ciy dund ñépp dañoo siggi looloo tax ñun xamuñu luy jaam waaye mbokk li ngeen gis ci tudde ko des yi tudde leen ay mbindaan jaamoo ko gënoon a garaaw yoon ci jamono yonent bi alayhi salaam jaam yi moom nag yi xar yi la ñemale woon dangay am soxla léegi woo sa jaam mu ñëw nga jàpp ci nopp bi dem ca marché ba jaay faj sa soxla am ko kenn ku ñëw nga jël maye waaye xoolal bi lislaam ñëwee islaam ñëw kii di Abu Zarr ay lenn ci saxaaba yi ñooy nettali mu ne ñun day fekki nañ ko mi ngi yor benn sir mi ngi ko làmbaayoo jaamam mi ngi làmbaayoo beneen sir ci jamono rafle ñu ne ko waaw yow sir bi sa jaam bi làmbaayoo mënoo ko woon a jël rek mu nekk benn tini bi mat mu ne déedéet yonent bi alayhi salaam moo ñu santoon ni jaam yi day seeni doomi ndey lañu yàlla nattoo leen ñu nekk ci yéen bu leen leen jox ñu lekk lu dul ci li ngeen di lekk bu ñu sol lu dul ci li ngeen leen di sol bu leen leen teg lu ñu attanul lu ngeen leen teg jàppale leen ci moo tax gars yi employé yi nekk ci service yi tey ñu ngi lekk li seen directeurs yi di lekk ndax ñu ngi sol li seen directeurs yi sol ndax liggéey yu tar yi ñu tar des fois nga dégg trois mois cinq mois sans salaire ndax loolee da ngay gis ne bokk na ak xaalu directeurs yi kon mbokk ñu xam ni nit ñi dañu nekk ay jullit ca comprendre ruñu lislaam mbokk lislaam mooy société bi ñëpp sigg ñëpp jàppalante ñëpp doon ñoo xamee ne nii ku ci nekk da ngay yëg sa bopp loolu nag lan moo ko waral lan moo ko mën a waral mooy ñuy waxante njub di jàppalante ci njub alhamdulillah islam fekkoon na fi suñuy maam ci loo xamee ni nii yonent bi alayhi salatu wasalaam netti na ko al buxaari muslim solo ko ñii di bànnu ashar te mu bokkoon ci abu musa al ashari yonent bi alayhi salaam cay waa bani ashar yi ñoom day luñ daan def heure bu ñu demee ba dëkk bi ñu yëg ne xiif am na fi dañ naan lu waay am këram na ko indi ñépp génne lañu am indi ñu yëndi ko ci pénc mi konte borom kër yi niñ toll saam ko saam yi toll noonu séddalewaat ko ñépp yemoo ci dañuy lekk ànd lekk kay wala ñu ànd dee rek mbokk lu mel noonu yonent bi nekk li wallahi amoon na suñu maam yi fii demal ci village yi ci kaw yi ba tey jeexital ba ma nga fa am na lu ñuy tudd ay sàq sàq yi dañ koy def fële ca gannaaw dëkk ba dajale ko foofee dëkk bi yépp ñoo dajale seen i sàq amoon nañu suñuy maam yoo xam ne ñoo daan yor conseil village bi dañ daan bàyyi ba guddi ñu ñëw di ubbi sàq yi léegi la ñu dem ubbi sàq suñ caam fekkuñu fa dara ñu dem sàq suñ saw

des milliers de milliards nee nañ jël nañ ko ngir dimbali nit ñi waaye xam ngeen bokk ndimbal boobu mënut a yegg ci ñëpp ku nekk ci ñun la jéem a góorgóorlu xool naka la mën a dimbalee ko mu tane loolee corona warulu ko corona da ko fee fekkoon waaye nag ñu gën koo yokk jàppalente dimbalente te xam ne koo dimbali sa bopp nga dimbali yonent bi alayhi salaam nee na yàllaa ngi dimbali jaamam fekk mi ngi dimbali boppam yàllaa ngi xeccali jaamam fekk fii yaa ngi xeccali sa mbokku julit heure boo ko xeccali ci benn problème yàlla xeccal na la benn problème ci problème mu àllaaxira lii mbokk dangay gis ni moom la borom bi subhanahu di ñuy wax ne taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu al ismi wal udwan fu ngeen toll dee leen dimbilente ci njëkk ragal yàlla fu ngeen toll dee leen moytu di dimbilente ci lépp loo xam ne day jur bakkaar ak la nga xam ne mooy noonu yàlla mi ñu sant loolu yàlla nañ yàlla jàppale yal na yàlla booleel ñu suñuy xol yal na yàlla wërsëgal ñu yërmaande yal na yàlla wërsëgal ñu yërëm suñuy mbokk julit jàppalante suñu mbokk julit yàlla yàlla xetti lu ñu àdduna xetti lu ñu àllaaxira natt bi yàlla wàccee di loo xam ne ëmb na àdduna yépp yàlla yàlla yëkkati ko ci njéggalam ak yërmandeem yàlla yàlla remplacé ca place bu mu nekkoon li nga xam ne mooy aafiya ak xiiwalam yàlla yàlla boole ñu ñun ñëpp mu ko rafet te defal ñu àjjana mi suñu wàccuwaay allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamu على المرسلين والحمد لله رب العالمين